ci lëkkaloo bu am seen diggante tuba Argentine TV ak Big Dealer in the House ñaari kër yi di yëngu ci wàllu tas xibaar amal nanu seen ubbiteeg studio ci teewaayu Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke moom Serigne Abdoul Aziz Bara ànd ak Talla Sall mi fa teewal fédération Daïra Mouridi waaye tamit sëriñ Abdoulaye teewal fa jànkatu xasida yi bésub inauguration bi mbooloo mu bari jóge woon fu nekk ñëwoon teewe ko. waaye nag studio bi ñu ngi ko duppee Massar Ba di sénégalais doonoon kenn ku doon jàppale communauté sénégalaise bi si wàllu lijjanti ay kayit si gox bii taxawaayam rafetoon loolu moom nag ginnaaw bi mu làqoo ñu delloo ko njukkal duppe ko studio bii nga xamante ni ñaari kuréel yii di Touba Argentine TV ak Big Dealer in the House ñoo ko taxawal cérémonie bi amoon solo loolu ñu teewlu si ay kàddu yu ñu yëkkati woon. salaamaaleykum maa ngi nuyu ko sant tey wax nga dafa nekk benn jour buñ buñ kontaan xam nga loo xam ne bañ ko teree liggéey yàgg na xam nga soo ñuy liggéey commencé filmer ay portable comme

di am nag benn message may jox quoi jeune sénégalais yi xam nga xam naa ne fi am na ay jeune sénégalais te man jeune laa comme ñoom xam nga a a liggéey dara loo xam ne a jàppale ñun fi am nañ doole bi mën nañoo jéem a jàng dara loo xam ne ñoom dañ ci mën a dimbali communauté bi ëllëg quoi mais seulement ñu bañ a concentré suñu jaay de rek quoi nañ liggéey loo xam ne nañ def ba ba nga xam ne nañ fi mën a dund Argentine mu mel ne ñu ngi Sénégal quoi xam nga dara ba ñoo manqué am ay télé comme ni xam nga am ay restaurant africain ay yeneen yoo xam ne xam naa ne am na jeunes yoo xam ne bu ñu defoon un peu d'effort xam nga mën nañu agsi fii ñu agsi quoi merci beaucoup grand frère nuyu ñëpp di leen sant bu baax te leen gërëm ci wuy si bi ne moom ngeen ñu euh, lii nag mën naa ko tuddee ne ndam la ni ma koy faral di waxee duma ko jàppe ndam ndax bi nga xamee ni jóge nañu Sénégal ñëw kenn ku nekk domaine bi nga man fexe nga ba def ci lu avancé buñ ko jëlee ci sëñ Cheikh muy kilifa gi fexe na ba taalibe yi di tege ci yoon loolu mooy mission sëñ ba ñi nga xam dañ daan yëngu ci affaire u daayira fexe nañu ba daayira yi dox ba du njaay ñoom Moustapha ñi yëngu ci association fexe nañu it ba loolu lépp di dox amaan ñun lii suñu bëgg la woon di suñu ite bi ñëwee bi fekk bi ñoo xam ne mbooloo mu toll nii lu mel ni mu ñu fi ñàkk ci la ñu créé fexe def ay médias yoo xam ni dana facilité suñu ay communiqué ñi nekkul ci dëkk bi di xam li xew bu dara amee ñu fexe ci waxtaane ba yaakaar naa gis nañu résultat yi. ba Argentine TV ak Big Dealer in the House fas yéene amul lëkkaloo bi si anam yu rafet liggéey bi nag ñu fas yéene ko teg ci professionnalisme yaatal ku nekk jariñu si ba askan wi ak mboolem ñi ko seq gis si seen bopp. muy leader bu nit ñi xàmmee fii ci réew mi. koo xam ne ñi nekk Flores duñ ma baay ma fen muy koo xam ne nii am na solo ci nekkinu sénégalais yi muy koo xam ne nii bay na waaram vraiment tamit ñu am honneur boobu parce que Gambien di koo xam ne ni du fàtte démb mu am honneur boobu ne ko yow ci studio bi nga xam ci laa taxawal ànd kooku Touba Argentine TV yaay ki nga xam ne yaa ko inauguré muy lu rëy ci moom vraiment ñu bàyyi ko mu exprimer ay kàddoom. <coughs> asalaamaaleykum eh, gars yi maa leen di ziare yéen ñëpp di leen nuyu waaw di am nag eh, suñu jotaay fii nii wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne. Euh, lu rëy la ci ñun. ñu ngi nag kontaan ci ñëpp képp ku fi ñëw rek ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax képp ku fi nekk rek ci dëkk bi nekk Sénégalais ak koo mënti doon na nga xam ne ku fi ñëw rek euh, suñu borom moo fi tudd euh, moo fi tudd sa tur moo sa destin fi la nekk. bu ñu bu ñu bu ñu nekk ci benn milieu rek comme gëm njaay mi comme ni ko Gàmmee waxee am na fi jeunes yoo xam ne am nañ possibilité am nañ xam-xam bi mën nañu de mën nañoo def leneen ak leneen ak leneen kon nag kenn ku ci nekk li nga jàpp ne tey boo ko defee di ci am lu la jariñ nekk ci ba suñ borom dimbale ci àdduna yàlla waxul kenn dara mais nag kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax leen sant leen gërëm así es. Primero, para mí realmente es muy emocionante el día de hoy. Para mí es un día histórico porque es el primer estudio senegalés africano hecho acá en Argentina. Y eso es un día histórico. Un día van a poner una placa en la calle diciendo, aquí se hizo el primer estudio. Eh, me emociona mucho también que que se llame Masarba, porque Masarba fue una persona muy importante para toda la comunidad afrodescendiente africana acá en Argentina y veo como un, un, acto muy lindo, muy bello, que su nombre esté acá, que recordemos a esa persona que luchó para que todos tengamos una vida mejor, seamos brasileños, seamos senegaleses, seamos haitianos, luchaba por todas las personas realmente. Eh, ak bu paasee yéeg-yéeg bi ñu ci am tey li ci suñu kanam tey lan mooy nësër yoo xam ne nañ koy nësër pour liggéey ko ci wàllu média waaw vraiment bu góor ñu ngi ginnaaw bi ñu sante yàlla jullu ci yonent bi en tant que musulman en tant que sénégalais en tant que africain ñu ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di xam ne tey euh, yàlla dafa def ñu ñu fekkee lu bari fekkee lu bari dafa dafay am lu muy wund mooy big deal indaxaal bi muy ñëw ci suñuy tànk la wàcc muy Mamadou Camara góor mi bi muy ñëw fii la ñu fekk vraiment ñuy ñaari jeunes yoo xam ne yu dynamique la ñu def benn trade d'union def benn union boo xam ne ñu tuddee ko studio Touba Argentine TV ak bii di In The muy lu am solo vraiment muy loo xam ne une projection futu futuriste la am muy loo xam ne day jóge fi jëm fële ñu ñaan yàlla mu egg fa mu jëm vraiment muy lu am solo loo xam ne nii ñoom bi ko taxawalee ñu bokk kook ñi nga xam ne ñoo ko liggéeyal muy benn benn projet à long terme boo xam ne dañ ko étudier lu yàgg a juddu tey tey tey di lu am solo loo xam ne nii ñëpp rafetlu nañ ko képp ku nekk ci dëkk bi boo déggee lii di ko rafetlu waaye liñ ciy gën a rafetlu nag mooy li nga xam ne moom la ñëpp di bàyyi xel mooy turu ki ñu ko tuddee muy le feu Massar Ba di koo xam ne nii vraiment euh, ku ku ku liggéey ci réew mi la muy wàllu euh, la la lutte muy koo xam ne dafa doon dafa doon liggéey pour euh, vraiment euh, nekkinu képp kuy afro descendante nekk ci jàmm ci réew mi ñëpp xamee nañ ko ñëpp ràññee nañ ko ñëpp euh, nangul nañ ko naam mu mu dëddu nag te ñun suñu culture daf ñu may ne ku dëddu vraiment waroo ko di fàtte di nga koy def ay ñaan waaye ci ñaanal boobu nga jëmmal ko mooy nga am sa mbir tudde ko ko nga honoré ko nga nga ngay ngay honoré mémoire am loolu moo tax ñu jël studio bi tudd ko Massar Ba waaw sénégalais yi nag ñu ngi leen di lancer un appel c'est un appel euh, solennel comme ni ñu koy waxee mooy appel boo xam ne ni bépp sénégalais bu nekk Argentine nga xam ne am nga sa idée am na loo bëgg exprimer via Facebook via internet via YouTube vraiment nga jege le studio Massar Ba vraiment il est toujours disponible les portes sont ouvertes vraiment nga ñëw exprimer wu li nga bëgg a wax. wax li nga bëgg a wax ñu ñu boole ci émission bi méngoo ak li nga bëgg wax vraiment loolu pare nañ ci di lancer beneen appel nag moo au au au médias sénégalais que ni ñun ubbi nañ suñu portant vraiment ñu ngi liggéey ak yenn rajo yi d'ailleurs ñu ngi en contact direct ak yenn rajo yi pour mën a am pour mën a am euh, la transmission directe bi ñu ngi ci ubbi woo ñëpp nag képp koo xam ni daal rajo bu nekk Sénégal nga pare nga pour liggéey la communauté sénégalaise en Amérique latine parce que du ñu que en a des Sénégalais au Bolivie a des Sénégalais am nay Sénégalais Euh, partout en Amérique latine Brésil Chili Argentine Pérou muy la communauté sénégalaise en Amérique latin ñuy en toute disponibilité pour liggéey ak yéen vraiment ñuy lancer appel boobu. mën a gëm sa bopp war a mën a xool loo xam ne nii man ngi ci di ci génn. ndax benn affaire rek du ñëpp ci la ñu opté nekk ci. ku ci nekk boo fekkee ne am nga loo xam ne nii mi ngi ci yow da nga ko war a appliquer pour mu leer. Mm-hmm. ba tax na lii ñu gis nii wax dëgg yàlla jàngate nañ ci lu bare bare bare si lëkkaloo bu am seen diggante Touba Argentine TV ak Big Dealer in the House ñaari kër yi di yëngu si wàllu tas xibaar bon liggéey bi muy liggéey nii ànd ci ak góora am na lu ma ci fekkee lu tuuti loo xam ni Touba TV ak Big in the House ñu ngi ko doon liggéey muy liggéey bu rafet lu ma fekkee loo xam ni Badou njaay mii moo ma ci intégré ak góora ba ñëw di leen jàppale ci liggéey bi mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la bu ñëpp bokk boo xam ni sénégalais yëpp ñu ngi ciy gis seen bopp ba ba tax na euh, ñu comité sénégal bi dañoo war a am vision boo xam ni comme ni ko Biggi kenn ku nekk am na idée bu nekk ci yow am na bagage bu nekk ci yow am na luy nelaw ci yow donc war a yee comme ñoom ni ñu ko defee am benn argument benn avancement boo xam ni di ko mën a exprimer wu pour que sénégal yëpp mun ci jariñ. waaw tey moom li may sentir moom daanaka wax ju bari Massar ba moom ñu bari xam nañ fi ma féete woon daal te bu Gambie ba. ubbi lii tudde ko Massar ba loolu dañ ci dañ ci dañ kontaan daal kontaan kontaan daal mënut a passé kontaan kontaan na ñu ngi sant gars yi fi tase yëpp macha allah waa Touba Argentine sañ góor moom macha allah. bésub inauguration bi mbooloo mu bari jóge woon fu nekk ñëwoon teewe ko studio bi ñu ngi ko duppee Massar Ba di sénégalais doonoon kenn ku doon jàppale communauté sénégalaise bi si wàllu lijjanti ay kayit ci gox bii taxawaayam rafetoon loolu moom nag ginnaaw bi mu làqoo ñu delloo ko njukkal duppe ko studio bii nga xamante ni ñaari kuréel yii di Touba Argentine TV ak Big Dealer in the House ñoo ko taxawal Touba Argentine TV ak Big Dealer in the House fa seeni amal lëkkaloo bi si anam yu rafet liggéey bi nag ñu fa seeni ko teg ci professionnalisme yaatal ku nekk jareñu si ba askan wi ak mboolem ñi ko seq gi ci seen bopp